acca lamb jaa noonu ah lamb ji demi final njaak seen ak ngañ seen ci la yem parce que ñoo tolloo avertissement ñu yokkal leen temps temps ba jeex ñu ba jeex ñu yokkat laat ñu yokkalaat leen temps temps ba jeex ñu leen temps ba jeexaat ba soixante-dix mille fois kenn xamul li arbitre lan la a ah, léegi nag lamb ji tas na lamp yi fay na ordinateur moo taxawoon final ordinateur Modou Faye moo taxawoon final ngañ seen njaak seen di bëri demi final waaw arbitre yi atte arrêté combat bi kenn xamul lu ñu fu mu nii lu ñu àtte xaar jël njaag seen ba lu muy wax. non non ngay seen seen gën a bëree. waaw man du bu wax mu war a bëre. sa waay da lay téye jël sa jël loxo ko sa kanam. ku nekk ñaata avertissement. non ku nekk benn waaw waaw ëpp na ëpp na sax 30 minutes mais moom comme que moom dafa dem dem war a jox victoire quoi looloo jaar. saa daa daw. looloo jaar quoi. dañ wax dëgg daw. am na mais gars yi tamit si direct bi ñu ngi wax njàpp. waaw dafa liggéey dafa am doole yoon. waaw waaw damaa sonn bu baax. waaw amu seen fay barke Seydina Muhammad. mafia bi tey daa am doole mënti dem xam nga. damay topp man tey bu ma bu ñëwee sax fekk ma daanu si tàngaay dama dugg roose. Uh-huh. barke Seydina Muhammad mais loolu moom motivé quoi. Uh-huh. parce que boo bëggee dëgg-dëgg sax ki may digal dama woo dama génn lamba ji gën a beneen lamba uh-huh. mais dem bàyyi fi gars yi ni maa ngi déplacé saman ba Joal comprendre nga ma expliqué dama ne foog ma toog retrouver

vraiment def nañ seen def na li war a def si ñoom ñaar quoi. xëy na ci arbitre rek ah wala boobu ba léegi yàlla la quoi waaye mais man moom aw si débat quoi si mais tey yaa ah, xaar xaalis. waaw ah taamu naa ko miin naa ko <laughs> waaw ah, mais nag su ma sañoon làmb ji yegg. yegg waaw xam nga parce que làmb moom euh, bu nit di seetaan làmb moo jël làmb ji moo ko doon mais làmb yoo xam ne kenn jëlu ko kenn amul xam nga waaw métti na nag métti na parce loolu mais nag ñëw rek. waaw ngay seen a ngi noonu. ba final bi euh, demi final sa laay wax. waaw problème yi amee ñu gis nga bëree yàgg njaax seen bu samoon. waaw demi final boo xam ne toll na ni match football ay plus de quarante minutes. arbitre bu ne tey na bi. waaw bu ñëwee ma génn ko keneen jëlaat souffle bi. waaw lii lañ ma def joof yor démb. Mhm. Euh, mhm. waaw kii ma génne ko point. waaw bu mhm. ma ko génnee. keneen ñëwaat. waaw génnee keneen ñëwaat jëlaat suuf la ba six fois. Mhm. tu tu tu jël mënul am. Mhm, doy na waaw demu dama koo def ak Paul man te bu mu téyee ngëbi bi. Mhm. ñu suuf la Paul bu téyee sam bos ñu bàyyi. waaw daal lii nag. waa CNG war nañ ciy jël seen matuwaay. waaw waaw. <laughs> waaw <laughs> yaa ngi wax pare garaaw garaaw yi mu ngi yàq suñu waxtaan wi la <laughs> mais nga ñeneen waa CNG nañ ci jël seen matuwaay dëgg la métti na waaw. tey moom man en direct laa nekkoon ay junni nit di ma seetaan mais demi final bi dama koy wax te dee ngañ seen nii moo gañe njaax ku ko waxul complice nga waaw tamit bu ma yoroon